Ndeye Mariam Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk déglukat yi dal leen ak jàmm Idi Thiam mi jiite UNACOIS Union nationale des commerçants et industriels Sénégal tey jii de moom mooy gàndu poculikay bii di Sud Quotidien ci waxtaan ba mu seq ak ñoom ñëwaat na nag ci jafe-jafe yi nga xam ne nag ñoom ñooñu di importateurs yi ñu ngi koy jànkonteel su fekkente ne nag dañoo bëgg a indi suukar fii ci biir réew mi ñoom nee nañu sax fi mu nekk nii nag lu ñu mënul nangu moom mooy lu tax ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca compagnie sucrière sénégalaise ñoom daal di dugal nag fii ci biir réew mi ci lu tolloog vingt-deux mille mille tonnes ci wàllu suukar te boobu nag fekk na daal ne huit mille tonnes dong de lañ leen may ñu daal di dugal fii ci biir réew mi ñoom ñooñu nga xam ne nag ñoom ñooy importateurs yi ña ngay naqarul li ni mel lañ ca gis moom mooy daal ne waa compagnie sucrière sénégalaise ñoom dafa am nag lu ñu xaatim ak groupe Sénégal loolu nag moom moo tax daal ba fu mu nekk nii lu leen neex la ñuy def ak moom te nag ñoom la ñu gëm moom mooy daal ne joriñ bi ñu dénk wàllu commerce di Aliou Sarr moom nit bu jub la moom nag li nga xam ne daal lay def lépp ci yoon la koy teg te it du nangu nag ñoom ñoo nekk ci biir compagnie sucrière sénégalaise di ko këlli këllee li yam ba des daal Idi Thiam ma ngay xamle ci biir réculi kay bii di Sud Quotidien ne léegi moom doy na sëkk dootuñu nangooti nag groupe Mimran di def lu ko neex fi ci biir réew mi ñoom nee ñu nag fu mu nekk nii dinañu fasciné nag ci xàccandoo di dóoru doo ñoom ñëpp jëmale ko nag ci groupe Mimran ba ñu leen laajee nag ndax su fekkente ne nag tey jii fexe nañu nag ba importation suukar ñu jox ko waa UNACOIS ndax boobu nag dina fekk ne ñoom dinañu wàññi njëgu bi Seydi Thiam daal di tontu ci biir cuulikaay bii di Sud Quotidien ne nag su fekkente ne daal li ni mel moom amal nañ ko fii ci biir réew mi kon bu boobaa moom kilo suukar bi dinañu ko jaayee quatre francs boobu nag fekk na waa CSS ñu ngi koy jaayee francs tey jii nag Barthélémy Diaz dina dem wuyu ji ci kanamu yoon procès bi nga xam ne nag moom la seq ak ñii di régie publicitaire yi tey la koy tàmbali cuulikaay bi di enquête mi ngi ñuy xamal ne maire bu dafa yàq ay panneaux publicitaires yi nga xam ne nag moom moo nekk ci euh, gox bi mu daal di jiite ndaxte ñooñu nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci régie publicitaire yi euh, fayuñu ko woon taxe yi ñu ko waroon a jox ba léegi ci biir culikaay bi di enquête suñu naataango yi ñu ngi ñuy xamal ne kii di Tayib yóbbuwaat nañ ko nag ca kaso dina fa tëdd ci lu tollook euh, juróomi atu kaso culikaay bi de Le Quotidien nekkoon Tayib dina delluwaat foofu nga xam ne nag moom mooy ca Rebeuss ci biir culikaay bi di Grand Place suñu naataango yi sax ñu ngi ñuy xamal naka la ñu ko jàppee ndaxte ki nga xam ne de euh, moom mooy Taib Socé moom dañu ko woowoon nag ci kanamu yoon ngir mu daal di teewee li ni mel nee nañu nag ba mu yegg si nekkite fekk na ñu daal di wax ne moom dinañu ko tëj ci lu tolloog ñetti atu kaso moom ci saa si nag la daal di génnee ci poche am caabi otoom ak tamit ñaari téléphone ya mu yore woon jëbbal ko nag soxnaam kooku daal di sëgg di jooy jooy yu métti ba ñu mujjee kaa génnee sax sa salle d'audience ba autolikaay bii di grand place moo ñuy nettali nag li ni mel autolikaay bii di zoom info moom la muy laajte mooy ndax ki nga xam ne nag moom mooy Youssouma Jigéen Ndour moom mi nga xam ne nag moom moo fexe woon ba sa njëlbeen ñu woon ki nga xam ne nag moom mooy Taib Socé ndax dina profité waale nag ci rang ministre conseiller gi mu nekk ngir génnewaat te kaso ki nga xam ne nag moom mooy Taib Socé njiitu réewum Sénégal di Macky Sall ci njatulay bés bi fële nga xam ne nag moom mooy ca Popenguine ma ngi fo doon daje ak directeur généraux yi ak tamit au cadre yi nekk ci biir administration autolikaay bi di Le Soleil mi ngi ñuy ne ndaje boobu nag Macky Sall la mu ca séentu moom mooy nag waajal bu baax a baax rentrée gouvernementale bi fexe it ba soññ ñi nga xam ne nag ñoom ñooy directeurs généraux yi wante cuglikaay bi di la mi ngi ñuy xamal ne ndaje boobu nga xam ne nag Macky Sall ma ko doon seq ak nga xam ne nag ñoom ñooy DG yi ba mu koy def dee yëgawu ci nag ak ministre yi léegi nag cuglikaay bi di la la mu ca gis moom mooy daal di jiixi jaaxa bu daal di indil ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ay jëwriñam ginnaaw ngelaw gu métti gi nga xam ne nag moom la ñu nemmeekoo fan yi yëpp ci gox yu mel ni Hann Rufisque Bargny mbaaw ba ca yi sur mer yëglekaay bi di l'observateur mi ngi ñuy xamal ne ay yàqu-yàqu yu métti la fa nemmeeku ndaxte fa li nga xam ne de moom mooy ca aan am na ci lu weesu nag ñaar téeméeri kër yoo xam ne yàqu nañu yàqeet fa li nga xam ne nag moom mooy ca tëngeej yëglekaay bi di l'observateur mi ngi ñuy xamal ne sëc yu jokkul kaw daal dafa fees della i ndox fa li nga xam ne tamit moom mooy ca mbaaw foofu moom la fa gën a yéeme moom mooy daal ni benn bateau bu mag a mag ñu koy tuddee cargo boo xam ne daal moom pétrole la def ba fees dell moom moom munul woon nag dem ba sa mujjantal ga nag leer ci tefes bi yëglekaay bi di l'Observateur di ñu xamal ne ay yàqu-yàqute ay yàqute yu métti kon la ñu nemmeeku ginnaaw ngelaw goog nga xam ne na moom moo amoon na ci njeexteelu ay bés bi wàllu tàggat yaram nañu koy jeexalee jour de sport ma ngay ñëwaat ci kii di Papy Djilambo ji léegi nag ma nga ca Chelsea yëglekaay euh, bi di jour de sport ne loolu moom kenn xaaru ko woon mun nañu wax daal ne nag surprise bu rëy la ci li nga xam ne nag moom moo jublu ci wàllu ñaareelu euh, match éliminatoire bu CAN 2017 stade yéen kay mi ngi ñee xamal ne démb suñu gaynde yi ñu ngi doon amal seen premier galop d'entraînement ñu daal di koy jeexalee ak cubli kay bii di suñu lamb léegi nag ñoom fu mu nekk nii da leen jitteel moom mooy xool ba xam fu mu nekk nii nag kan moo a mun a jàkkaarloo ak ki nga xam ne de moom mooy Bombardier ngir xalaat a jël li nga xam ne nag moom mooy titre roi des arènes su fekkente ne nag Modou Lo ak Balla Gaye numéro 2 ñoom moom fu mu nekk nii moom mënatuñ ko xalaat kii di Gris Bordeaux ak Lac de Guerre numéro 2 wax nañoo nekk nag ay adversaire wu euh, ki nga xam ne nag moom mooy Bombardier wante suñu naataangoo yi ñoom lañu ñu gis moom mooy daal nekk gën a yelloo nag taxaw jàkkaarloo ak ki nga xam ne nag moom mooy Bombardier du keneen ku dul Eumeu Sène ni moo nekkoon mbokk déglukat yi li gën a fas ci biir aujourdi kaay ñu leen di ñaanal njeexte te bës ak jàmm